baay Abdou Faye nee na xool na xool na koor bi nee na lim ci ràññee woon mooy benn am na ay góom ci bopp bi boo dina ñu wax ne da doon daanu yësi nee na fekk na bopp abdu Faye mu am ay góom fekk na itam fii mu ñuul kukk mel ni lu xam man de ñun de lay wax sax ñun wa FRAPP yag nañ dugg commissariat central yag nañ ñu tëj ci cellule commissariat central waye man depuis démb ma ngi jema xol naka la doomu adama mëna xaruwé biir commissariat central. Ben, da ngay ñew ñu tekki sa ceinture ñaar ñu simi sa dàll doo yore caabi do yoré dara. yoon bi ma qui mujjee dugg wala avant dernière fois njàmpe bu ñu doon permettre mu dugg mooy njàmpe ñax yi njàmpe ñax bu fekkee bàyyi nañ njàmpe bu dul njàmpe c'est la responsabilité de l'État du Sénégal waaye même beneen njàmpe sax je me demande imaginez man Guy Marius Sagna ngeen dégg ne dañ ma garder à la le lendemain ñu ne leen dama xaru ak njàmpe man Guy Marius Sagna ak njàmpe fan ngay xaroo waaw cellules yi cent personnes yenn saa sax dañ ko fay dugal ba pare jaabante bi y a deux cellules qui se face am na beneen cellule ci kaw mooy cellule boobu nga xam ne pour saw d'accord da ngay saw ci benn bouteille yéen ñëpp mais même foofu je me demande comment est-ce que njàmpe sax lu muy def ci cellule bobu ça se trouve au premier étage ou au deuxième étage man mosuñu ma tëj commissariat central man rek Fatale ko mo fuñu tëjee membre FRAPP ci ben cellule mom rek donc xaru nu mu mën a amee bi mais commissariat central a une caméra de surveillance néeg bi may wax nan ci kaw la mais néeg bobu dafa am caméra ay toog goudi nga gis lampe bi ci kaw mu xonk donc waaw foog ñu wax ñu justice et vérité foog état du Sénégal bàyyi li ñu naan déni de justice maanaam mbir am ñu ne du mujj fenn loolu tamit bokk na ci liy jur naxar ci askan ba askan réagirait comme nous réagirait mars et février dernier parce que pour moi, un dañu war justice et vérité pour Abdou Faye Et deuxièmement pour ñeneen ñu dul Abdou Faye et nous avons waa frappe pare pour ànd ak nous gi ak ñeneen ñëpp citoyen dossier bi nag ñun ñëpp ko bokk na pour ñu am lu